léegi man Boucher xam nga lu ma la bëgg a laaj. Sénégalais yi ñoom dañoo jàpp ne maanaam yow da soxore soxoree waali wala da ngaa iñaan te man ni ma la xame xamee ko soxol xol doo nit ku bon ku baax nga mm-hmm. te ku yéene doomu aadama nga mm-hmm. li tax kàddu boobu di jog chaque jour. Ah, waaw waaw. am na yenn yoo xam ne su ma ko waxee nii nii nii nii nii nii. Sénégal dootul neex. waaw. Sénégal di neex. waaw waaw xam nga. waaw gars yi di dégg showbiz bi maanaam yow showbiz bi rek nga bëgg buy yëngu daal. su ma ko su ma ko leeralee nii rek. du baax. waaw bàyyi ma waaw mais nag ñu bëri comprendre na yow. showbiz ngay def mais ñoom dañuy jàpp ne dafa dafa soxor. dafa iñaan. te loolu man xam naa ne amul ndax maa la fréquenté man maa la xam. xol bu rafet nga yor. nit ne ma da ngaa soxor rek da ngaa iñaan te man au samay samay mbokk ak samay xarit ak samay nit ak sama yaay ak samay papa. samay rakk ak samay doom ak sama jabar. waaw adduna xam nañ ne au fond de mon cœur je suis une bonne personne. jeex na léegi ma profité waale buuse laaj la maanaam demuk njàpp gi lan nga ci xalaat. njàpp waaw. mais njàpp loolu moom moom la quoi njàpp moom loolu lay dund loolu la bëgg loolu la bëgg a def. waaw dafa jékki-jékki gis ni fi mu nekk arrangé wu ko mu dem feneen. waaw. mais man xam nga du ma def loolu. waaw ndax am na lu may ruus am na lu bañ. waaw keneen ak keneen am ñoo xam duñ def loolu ndax euh, am na ñoo xam dañuy gore ba xëy de waaw waaw moom léegi bu dee loolu la bëgg a def dañ koy bàyyi ma def ko. nit ku nekk gis nga fii. nit ku nekk am nga droit dund lu la neex. waaw mais nga gore tamit dafa baax. gore nag ci nit lay ne waaw kay loolu perso loolu vie privée. nit war doomu aadama baaxul. loolu vie privée la yi ngay tudd noonu yëpp vie privée nit la yàlla moo koy def ci nit. waaw léegi loolu bu ko yàlla dindee ci yow rek xoolaatal sa bopp jeex na. waaw noonu la demee jërëjëf.